yëmbal mooy borom Kër Massar mooy borom benn barak mooy borom Caaray Pikine bu jigéen ñëpp jug bu jigéen ñëpp jug kii lépp la mënee tëlawul dara ma ne lépp xaar mu ñëw rek jur mu daanu rek mbooloo mi moom du moom yàlla la xool bee rafet kii xale bu ndaw na ko tardaloo yoon xool bee rafet bilaay bi may neuvième bi incha allah te yàlla na ko yàlla defal jàmm am jàmm incha allah. Boy Diop 2. si kanam tuuti ngeen soo xam kan mooy Boy leneen la barke maam Serap Fall. may ma 3 minutes 3 minutes rek. waaw. waaw yëmbal yëmbal. yëmbal waaw. góor ñi bëgg ko mag ñi bëgg ko mag si yaram daa am yar am na yar am na taalibe baax la da ñeme entraînement waaw te mbër moom bu yaroo rek ñeme entraînement respecté ñëpp incha allah borom la lay defal nam bu baax la bu na la may après ma allah Thank you. ñoo mën ñoo doole. kii fetal sax mi nga doon dugg. yaa moo ko ñaanal. soo waa ngi ñëw xaaju léegi. xaaju léegi léegi léegi. loolu seew bi seew moo loolu. seew daa am. yeneen fay. non graaw de. graaw ẹjọ́ bóyá kò ní ọ̀hún. Não, não, não. Até que você anda aí. Tchau, tchau. ndaysan mbokk yi wure wa dem na këng waxi mak dem na dañ taali bàkk war na mbam mbokk yi tay bis bin ñu xaar ñuko ko daan xaar ay bis mom yag ñukoy xaar ndaysan ci ay heure mbokk yi arbit bi lan na ñaari mbëri ndax pare ngeen ginaa bi mu leen waxe li lamb nangu ak li lamb bañ mbokk yi jeex jam suñu càmmoñ bo jop de suñu sunu jor ndaysan mbokk yi fallu Ndiaye le promoteur numéro un tey moo ñu woo fii ci bir stade bi ñu ngi lew to ñom ñaar la révélation ñuy bëri ñaari xale yi nga xamante ni ay ndaanaan lañu kii bàyyi ko ñaari tali NCB kii bàyyi ko yëmbal benn baraak Kër Masar ndeysaan ñaari xale yi waxante na lu ne ndeysaan ñu ngi Leewtoo mbokk yi ndeysaan ci teewaayu saa baa tey moom la ñu tuddi bés ndeysaan ñu ngi Leewtoo ñoom ñaar jeex jàmm sànni na benn coup waaye Edmond moo mon frère Alaaji Giwoon Ndiaye mooy sa baay ma nga ca yëmbal sama waa ji maa ngi lay nuyu bu baax ndeysaan ñu ngi lewtoo ñoom ñaar laa ilaaha illallah ñoom ñaar ñu ngi damante ay baaraam Diop 2 Diop 2 Diop 2 booy jeex jàmm sànni na benn coup ndeysaan ñaari xale yi ay ndaanaan lañu laa ilaaha illallah ndeysaan jeex jeex jàmm mi ngi bëri xale boo xamante ni mësta régg mu ñul moom Diop 2 nga jiital Diop de wacc na ba tolo ak mom mais boy jeex jam neysan taxaway am baxna trop ci digg enceinte mi nanan la mbawar mbawar yee ko topp ñu ngi ci ginaawum neysan ñi ngi damante ay baram jeex jam ak job de jeex jam ak job de jeex jam waaw waaw neysan oh wa ñaari xalé yu way tey ñaari ndaanaan a ngi bëri waaye Fallou Ndiaye le promoteur numéro un ndax xam nga li nga def ndax xam nga ñaari xale yi nga boole ndeysaan lii mooy lamb oh jeex jàmm jeex jàmm ak Diop jàppante nañu laay laa Diop de da jeex jàmm bañ na waaye Diop de fi mu téye dafa baax jeex jàmm bañ na jeex jàmm bañ na laay laay la laa Diop de daan na ko Diop de daan na jeex jàmm laay laay la laa Diop Diop de daan na jeex jam laay laay la laa nee na day suus ndeysaan Diop de daan na waa daan na jël bu rëy ndeysaan mi ngi def lu rafet ndeysaan dem na ci supporters yi ndeysaan da leen di jégalu waa supporters yi ngi koy tàcc lii mooy lamb lii mooy lamb waaw waaw waaye lii mooy lamb waaye supporters yi nanu roy ci ñoom waaye si si xoolal supporters yi di tàcc Diop de supporteru Jeex Jàmm yi ñooy tàcc Diop 2 waaye lii mooy lamb lii mooy lamb. waaw wuy loolu ñoom ñaar fair play rafet na. gërëm daanaka daan la mbër sama diggante kalau sama ma daan la yàqal la dara jeex jeex ma daan la su la yàqal la dara yàlla bu jeex maa jégalu maa jégalu sant ko kaay maa jégalu nooro maa jégalu dégg mais wuy ma lii lan la nekk xala dëkk dëkk wër ma. yëmbal ma ne benn baraak. tey jum waru te Modou barki Seexul Xadim man anaan laa. mais Modou sama bëre mënoo ko xam. sama bëre. mënoo ko xam. tolluwaayu bi xamoon nga ko. Fall man xala laa de mais ji koy mbëru mag laa yor. xala laa Modou mais ji koy mbëru mag laa yor. général Malika. Bilazer fils de Balla Garga 2. Malo Seras Ama Baldé fajar Bib Diop. lan moo tax lan nga def ba ñooñu ñëpp nekk ci sa ginnaaw lan la. moo damaa yaru barke Alxuraan Karim man du ma manqué de respect nit du ma tooñ nit du wax nit lu ko neexul ñëpp man lu ma lu ma nit ëppale nangul naa la ko lu waay am yéene naa la ko man Modou du ma yéene nit lu bon te Modou soxoruma Modou yàlla ñëpp am jàmm. secteur bi nga nekk làmb développé wu foofu bu baax. Diop 2 lan la bëgg. Diop 2 li fi grand mi nekk ba taxaw fa Diop 2 dépassé ko barke Seexul Xadim Modou. mu ne bi nga ak jeex jàmm. mais Modou da jàpp ko lu tax nga jàpp bëgg a imposer sa imposer ko par force sa doole. meilleur loolu bëgg naa naa wax sa staff bi rek mais Modou damaa bëgg yow meilleur lutteur man maa ko jël man Diop la 4 combats saison bi 4 victoires ah ak ma ak ak ñi ma daan ak manière ak manière bi ma daanee bëgg naa loolu après nga wax si yow def si plateau wax si. Modou man damaa waroon champion sama yaay amul kër Modou damaa war a jëndal sama yaay kër Modou booy kenn du ma si daan barki Alxuraan parce que sama yaay amul fu mu dëgg Modou ñu doon luyee te man te man jàmbaara bañkat laa ba ma demee ba xam ne affaire yi dëgër na damaa bàyyi jàng Modou barki Alxuraan ak kërim dem liggéey yi liggéey bi dëgër Modou ma ne man jàmbaar laa direct góor mooy daw sama yaram ma du mbër mais Modou man xam naa ne mbër laa barki Seexul ñi aw ma seen fay lépp ñoom la man du ma dërëm man Modou su ma dara Modou yàlla alaaji alaaji gay naan mu samba di ngero mi jingu mama jam dina daw nu mbaro maro maro mar pari yo inde inde inde inde inde inde lambu cosaan la bëre baax góor day dangi daan la ñu daan la bëre jëlu bu jëlu di ŋaayo bii ñoo ko ñun ñooy baroom yéen ñepp yéen ñepp ñepp doomi cosaani maamoo yéen yéen yi jëkkal cosaani maam lambu jëlu mu njaay drapeau en ses couloirs ngeen xam ni fii ñun ñoo ko moom lambu jëlu du ñaaw père nuyu naa la. mais noo gisee làmb ji tey. waaw sant yàlla bu baax yàlla bu baax. waaw macha allah. macha allah bu daan doon maa ngi leen moom. fekk dafa naay. waaw maa ngi koy yàlla. waaw kii dama ko xàmmee de. mais waa ji dama ko xàmmee de. doomu géej waay nuyu naa la. maanaam loolu doomu géej waay nuyu naa la. waaw. fils de Balla wala doomu géej waay. moo ñu woon rek. loo si wax rek. mais noo gisee làmb tey jii. nee na trop sax. nee na trop mais namm nga lii de. trop sax. ah am naa ko trop. namm nga ko de. mais léegi rek incha allah mais léegi rek léegi rek incha allah léegi rek. muy taw muy taw. waaw waaw muy taw gis nga.

Armonia kii ak Tampi. Armonia ak Tampi koo. kii ak Tampi. Tampi koo koo. waaw kontaan rek. Tampi koo. ak Catalina. Tampi koo ak Catalina.

les hommes du CNG sont là toujours là ndeysaan président Maysa Ndiaye Cheikh Sarr sama grand mon frère nuyu naa naa leen ndeysaan le sous-marin est là am na lu waajal. mais mosal si waa Iba Kane TV lay waajal. oui ma bàyyi problème mu Iba. waaw may waajal. Iba waajal ma dara yow sama waay nga lu ma nekk soo ko mën xam nga ko. may waajal. ma ah. ñaanal ma rek yàlla baax na. temps yaa dox guddi. ah temps yaa ngi dox guddi. non bu teg mais Assane Ndiaye. waaw waaw lii yaa lii yaa ñu ko tàmbaloon mais lu tax mu koy xëy rek mënatu ko am. lan la léegi ñëw léegi ñëw incha allah. mais yaa moomoon espoir lu tax gars yi nangu si yoon espoir lan la. non non ñi ngi ñëw xam nga mënoo tëgg ñëpp. waaw mais ñi ngi ñëw ak espoir bu neex. espoir bu neex ñu ak BM ak yeneen yu doy waar. mais lu tax yow sa bayre Iba Mar Diop la woon rek mën a toog lan la. non non bayre moom fépp la rek. waaw. xam nga dari moo amuloon daaw mais ren dina am incha allah dina teel a ñëw. dina teel a jóg am na yu bare sax. mu bëri yàlla baax na. mais maa ngi lay ñaanal. arène national bi nga raase ko. amiin yaa rabbi loolu rek laa lay ñaanal. amiin amiin waay combat espoir yi nag. incha allah espoir yi ñoo ko yor. espoir yi ñoo ko yor yàlla yee ko yor. nii noonu budget bi mënul sax 5 millions. ñoo ñu ngi ñëwaat bala ñoo màggali. bu yàlla defee jàmm ñu amal déggoo dinañ dinañ ko taxawal. mais titre bi kan moo ko jël fii. doy waar titre roi des roi des espoirs kan moo ko jël fii. mais nag Iba Mar nañ ko ubbi rek. suñ ko ubbi woon ñu xam kan moo ko jël quoi. sama sëriñ jàngal leen da leen di Sa Touba mi toog Sa Touba sunu xarit la sunu wëllëri la nit bu baax la la taalibe la moom la ñu ànd ak Grand la wax si Sa Touba Sa Touba di sunu rakk la sunu xarit la nekk nit bu baax nekk koo xam ne ñoo bokk nekk ci moom loolu depuis carrière ba léegi mais lépp rafet nit ku am yar la nit ku am teggin nit

chaque jour la les Je nit Thank you.

Bridges la tëraloon am na damante baaraam doorante doorante doorante jël na ko Boy Diop doo jël na ko Boy Diop doo jël na ko Boy Diop doo jël na ko Diop doo jeex Teman Daman teman baaraam daman da baaraam kamu, Jammu jawabannya tel ada di seperti yang kedua jongle jongle Bocor